murid di ñoo ma soññ waat ni ma nga dem fa gërëmaat li ñépp maase mën a waat mooy yaa di sangub jamono bàmbaa la tànn ca asal nga doon ci njiit yi koy jëfal lu tàkk tey yaa ko jafal ngir yow la dénk jamono sa yu baax yi fi newoon ñépp la maase gërëmoon sa mag ya it fañ la tegoon leeroon na gaayi jamono boole nga mbooleem seen ngërëm mu yiwu rëy nga foog ko lëm jox la ab cëram lee tax nga jiite jamono Cheikh Muntaqa tey yaay xadiim ngir moo la jox yoon wi nga moom moo tax nga ñëw toog di yéem te yàgg nga yéem jamono ba bàyyi jiitoo sa di des noon ya di naa léeg mu tas yaa jug taxaw jëf ku ne gis say jëfa yéem waa jamono Cheikh Baara yaa ko daa jëfal newoon ci moom di xaar ndigal lu mas a digle sikkuwul ni yaa ca man waa jamono Cheikh Baara dem Cheikh sii di ñëw nga ngoy ci moom di sàkku yiw baax ak woyof ku la ci raw mësula feeñ ci jamono seex si fi woon ñàkk ayib magi murit yaag seen adab boo leen fi fekkoon duñ la dab sa te yéem na jamono bokkoo ci ñii yaa nga ca ñee diiwaan amul fuñ lay ko ñee njiit nga fa ñoom ñu di la ñee te njiit nga yit ci jamono yoonu murit ñépp ñëpp la wekk fonk la lool ngay sunu sakk nee naa la woon yaay sunu mbég te yaay mbégum waa jamono yoonu murit ñëpp la naw xam nañ ni doo njiit lu ndaw moo tax ku nekk yi ñëw fi yow ngir xam ni yaa moom jamono yoonu murit yaay seen imaam yaay bàmba kenn du ko miim ñépp ngi ñëw di boof di raam yaay sagub waa jamono yoonu murit ñépp a ngi ñaan nga yàgga toog nu di la séen yow raw nga dex te raw nga teen géej nga gullambe jamono yoonu murit kenn di nga jàmbatu noot kenn ñaxtuwul sa ay gi mbàkke dal na xel yaay mbër mi téye jamono te yaa ni woon ku dem ma dem ku demulit du tee ma dem noo ngi taxaw ngir bëgg a dem wallunu yaa moom jamono murit di yaa yor seen njariñ njiit nga lu yiw maandu xarañ te mat nga ñépp ab sëriñ yaay ba tey ci jamono yow la soob digleel lu jëf say digle yow kenn du ko cof ñépp nga doy ñépp nga saf gil yilif nga jamono yow koo digal bam gànt ko na xam ni naari ñeel na ko te kenn du wax ba gindi ko ngir yaa di xutbub jamono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 ngir xam ni yaa moom jamono saalihu gay badar dalal te tëj sa way wi noppalul boo doon fi lim lim taxawal doo noppi yiirub jamono yàlla na nu yàlla rus ci yow nga yàgg a toog nu yàgg ñëw bégal nga mag bégal nga ndaw yaay wéttalu waaye jamono yàlla na la yàlla dëgëral baloo fi naal mu jàppandal barkeb ki sañ ci njàppandal saalix mi woon ci jamono yàlla nang fi sax ay atiyaat mottali mbooleem say mébét muccal ci ndog mucc ci cet jëfaat lu yéem waa jamono sëriñ Saalihu Géey Badar